ayca salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum Sénégal ni ñu koy faral di defee saa su fii ci télévision Futur Média muy émission bi nga xam ne bii ne tubaarkàlla askan wi yëpp koy xaar réew mi yëpp koy toog ba altine jotee di ko xaar muy seen émission set bi plus ngeen ànd ceeg ndaanaan yi mag a mag tubaarkàlla kenn ku ci ne mën na bis kenn ku ci ne rek tubaarkàlla mën na bis. te bu ma waxee loolu yéen xam ngeen ne li ma leen wax am na ndax ay ndaanaan doo nga fi toog ay artiste doo nga fi toog ñoo xam ni tubaarkàlla kenn ku ci ne prouvé na ci réew mi am na lu mu wane am na loo xam ne bii ne def na ko àdduna sépp teg ci seen bët muy ñoo xam ne bii ne bégal askan wi rek leen yëkkati maanaam fexe nu askan wi seen stress di ñëw dong seen métier amuñu meneen métier ñi ma toogal nii kenn amu ci meneen métier mu dul ndeysaan bégal doomu aadama yi ndax tuwaar kàlla nag eh, lu yàlla sàkk doomu aadamaa ko ci gënal ñun nag ñu ne nag ah nun nan ci participer nan ci participer mooy fexe di leen bégal di dindi stress yi fexe ba ndeysaan tuwaar kàlla boo xëyee sax dëkk bi xaw a naqari sax xol neexul nun nu fexe guddi boo demee bay tëdd nu fexee nu nu neexalee sa xol fexe nu nu féexalee sa xol ziar kull koo xam ne bii na kilifa diine la kilifa aada ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay di ñaanal réew mi yàlla def fi jàmm ci barke yonent yàlla Muhammad di ñaanal kull koo xam ne bii na caabi féete na la gannaaw sun borom wëlbatiwaat la tubaarkàl la génne la fa nga ne ba nga mën a delluwaat sa njaboot di ñaanal kull koo xam ne bii na mu ngi tëdd ci lale hôpital waxtu wii nii mu toog mënta nelaw am métti lool tubaarkàl la mënta nelaw son lool ba nga xam ni kaasu meew sa bokk ko joxee pour mu naan ko problème la nu fas yéene jàkkaarloog yéen bégal leen fàtteloo leen lu baree bari ci yéen ndax nag loolooy suñu mission loolu la ñu fi tegee tailleur bi tailleur la day ñaw maçon bi maçon la day birig ak a ak di mool ka nga xam ne bii mooy menuisier métallique ca weñ yàlla ne menuisier bois ba ma nga ca dénk ya waaye suñu borom fii la nu séddee la nu séddee kenn ku nekk fa la suñu borom séddee waaw ndax nun fii la nu suñu borom séddee dafa jaadu nag nu nit nu koy jox askan wi bu ñu leen ko soxoree li ne ci ñun nan koy génne di leen ko jox naan leen ko wir ñu naan këlëb senegal jëm kanam ndax dégg gis na ma caako wàcc sa ànd ànd boo yéeg fekk ca borom mm. nun lée sunu ànd nañ ci ne dee ji daje nañ ci ne dee ji nun daal bégal nit ñee ñu yëkkati kaf ak yéen faw ak yéen ree ak donte mënunu ko waaye yéene boobu la ñu am mm. xam nga ibaadu bi da doon ibaadu bi da doon arbitré ibaadu bi di arbitré match su football. waa ji dribble dribble damaa xaa jàkkaarloo kaay tipp dóor ko mu dal ci poto bi. ibaadu bi sifle far ñu ne ko lan la mu ne bii. ñu ne ko lu tax nga sifle bii mu ne yéene ji rek ka am solo. <laughs> maanaam yéene waa moo doon mu dugal ko. yéene waa ji moo doon daal. moom yéene ji la def. def na lu yoon. kon it nun suñu yéene mooy ngeen bëgg. donte mënuñu waaye ñi ngi jéem. yal na yàlla dolli jàmm ci réew mi. Mm, bu ma sartagaalee day ëpp teg ndaanaan yaa ngi toog ponkal yaa ngi toog te tey fas yéeneen leen a bégal bu ko defee sama côté nday joor <laughs> doomi Grand Yoff ja xaritu police su Grand Yoff tuwaar kàlla moo làngoo Grand Yoff boo génnee police ba place am nga cay teg caabi ya ak téléphone ya ak chargeur ya ak kaabal ya ak écouteur ya koo koy caa caamas lan ngay nuyoo réew mi jox leen seen wàccuwaay bégal leen waaw père ginnaaw ba la sant yàlla julli ci yonent bi di gërëm suñu ñaari waajur dañuy gërëm suñu sëriñ sëriñ Babacar Sy Abdou di ko ñaanal yàlla yàlla yàlla yàggal taxawaayam amiin di ñaanal yàlla képp koo xamante ni yaa ngi ci mim réew yàlla defal la jàmm defal la sutura waaye di ñaan yàlla mbas mi ni ci réew mi yàlla na ko yàlla a dindi ak jàmm ci barke yonent bi ndax père waxoon naa ko fi dinaa ko fi waxaat uh-huh. ŋaaw gi métti na waaw ŋaaw gi uh-huh. na Macky Sall wax ci ŋaaw gi. ŋaaw gi métti na ŋaaw gi maanaam. maanaam ba da ngay boo xëyee suba. Uh-huh. da ngay ŋaaw tëdd képp moo lay dindi mooy taxaleeg ñaaw gi. Ah. bu fekkee nag da mel ni sama classe gi nga xam ne da ngay dugg ko génne ka dem di dox dox di dem ñëw. Uh-huh. foog ak ŋaaw ne ci yow. waaw kon yàlla nu yàlla dimbali suturaal nu ban tàggoog ŋaaw gii. Uh-huh. bi ci ñopp mooy uh-huh. xam nga boo boobu fekkee da ngaa ŋaaw si gémmiñ uh-huh. ñu neen déetawaay ngay dawi dépasse uh-huh. di dawi jàngoro ñu neen déetawaay ngay dawi alkaati ŋaaw gaa ngi ŋaaw gaa ngi bëgg mitti kon yàlla noonu yàlla defal sutura defal nu dund gu ànd tey bakkan te ñaan yàlla lu ñaaw xaju fii. xaju fii lu ñaaw xaju fii. yàlla na suñu borom def jàmm na suñu borom def jàmm ci réew mi. Mhm. defal na sutura defal na dundu gànd ak teewu bakkan. Mhm. di ñaanal bépp kilifa diine ak kilifa aada. Mhm. réew mi nu nekk mooy Sénégal. ak réew mi nu dendoor. réew mi nu sori. yàlla ci yàlla di yokk jàmm yokk ci sutura. ci barke yonent bi. Eh. lool daal laay génnee. Eh. en attendant les événements. les événements. doomi parcel ji 1 ba 26. ñu gën koo xam ca Père Moussawa. Hmm. ñenn ñi naan ko Ox. ndax booba jamono yi simba gaynde la woon mu daan mu daan mu daan takk gaynde gu jigéen. Eh. ndax <laughs> gu jigéen. léegi léegi am ñoo xam ne dañ daan cotiser xaalis. di werante ndax góor la wala jigéen la. <laughs> eh simba gaynde eh saa. ak miin ar moo miin te xam nga te xam te xam nga jamono yooyu mhm. yi ñoo doon star yi mm-hmm. star yi boo daan dem ci koñ di simb tubaarkàlla mm-hmm. lay dar xale yi jigéen dar la nan raa man raa xale yu góor yi siisu siisu toor kàlla <laughs> dégg naa daal xaw naa toje koñ parcelle daal un ba wen siis jamono jooju moo yoroon bës bi moo yoroon bës bi moo yoroon bës nu dem nag ba jamono suñu borom soppi ko mu nekk président tribunal waay léegi lii waaw ah, asalaamaaleykum <laughs> may dàq <laughs> waaw yow di ma ne ma ngir yàlla ba am sarax ba maay parce waaw avant seytaane bu mag boobu. mu di la di la léegi loo def. waa jeex na. <laughs> non daan ca ñëw daan ca ñëw daan ca ñëw. or eh, antenne. àdduna yàlla daa bëgg yàlla daa bëgg ñu kaw sutura. daan ca ñëw man boobu ba léegi. yéen a ngi wax maa ngi jàmm sama bopp ñaambur. daan ca ñëw xam naa fu ngeen jëm. bàyyi naa la nag yàlla yëpp bàyyi waaw père ñu ngi nuyu ñi nga xam ne ñoo seetaan TFM. te télé DFM mondial. man moom laa ko tuddee TFM télé DFM mondial. parce lii rek ay FM la. <laughs> indi ponkal yi toll nii ñu toog ci télé fas yéene jàkkaarloo ñuy xuloog seeni jabar. ñu bëgg leen jubale ci guddi gi te duñ leen laal. loolu ay FM a koy def. kon ñu ngi siyaar ñëpp comme ni ko Thiamas waxee. di seet sama doom yi feebar ci hôpital yi xam man xale yi ñooy samay mbir. di di di di nuyu taalibe nga xamante heure bi ñu ngi nelaw bu ñu yeewu ñu ko leen maa leen doon nuyu. di nuyu ñi nga xamante bi ñu ngi daal ñi ngi toog fas yéene jàkkaarloog ñun tey nag bëgg naa ni jabar yi xuloo woon tey par la force dañu war a juboo ñu amul dépasse dama bëgg tey ñu fàtte seen i suba tey daal mhm. na bi tàkkar naa kon tey y a ñu ñooy les invités na rajaxoo léegi nag ngir yàlla yonente bi kii di ma dàq wax leen ko mu bàyyi ma. <laughs> waaw mu bàyyi la bëgguma benn xeex. <laughs> Oh, oh, xam nga man naa toog rabu gaynde ñëw ma. xeex ak moom <laughs> waaw ndax man dama naan si ba mu yàgg ma eenaal gel ci biir géew bi. cërëjëf defar doom bu tooy xëpp xit diw la ko. waaw kon ñu ngi ñu ngi ñu ngi nuyoo ñu ngi daal di di xaar yëf yi yëf yi yëf yi tàkkarnaas waaw. Aïcha mi ngi noonu kontaan ca moom bëgg ca moom tubaarkàlla nee naa ko usines yi defar biscuit war nañ koy delloo nit kon di ko jox pourcentage. dëgg la merci bien Diouf. non tey dina leer. waay waay doon woote de dina leer. vieux teel lool ba ci kanam. vieux teel lool ba ci kanam. vieux lool. lii dencal ñu ko dencal ñu ko bu nu nuyoo ba pare ñu ubbee ko almoomin ee eh, yàgg fi amoon taa ah. dafa dafa tey faaw ñu jot ko ah ee eh, per tey kenn ku ne man daan naa simb waaye kenn ku ne dina wax la la ca génne. la la génne ci simb waaw. a ah, jeex na mais que xam nga ni dafa dafa aay ci jàpp. jàpp men loolu daan ca ñëw yow moom après caa moom yow lay jàpp. nga nekk gaynde dama man dama non baal ma jàpp ko moom. non non déedéet non gaynde bu góor. léegi na naa àggale nuyoo ba pare. léegi ñu doog a dem ci loola. waaw kay waaw kay léegi na naa àggale ba pare. bu nu àggalee ma ko bu nu ba pare. non nañ àggale yow nga jat ko. wala moom mu jat njaay. lu def yëfi gaynde dégg ngeen. yaa ngi lay wax Cheikh. ay ca mu ngi noonu kookoy Moustapha borom parcelle 1 ba 26 Toarkalla bu ko defee Toarkalla ma delluwaat pàccum ndeyjoor fekk fa doomi Tobbi Jaak Njabi. Hmm. doomi Louga Lo ja doomi Ngumba Ngeewul ja doomi Kebemer Jaak Ndand Fall ja Toarkalla kookoy borom Njambur Toarkalla kookoy borom Jamono kookoy borom Louga Lo. kookoo doyloo waa Njuga Lo doyloo waa Njambur doyloo waa ña nga xam ne ñooy tu a tund wa kookoy séeri sooda Toarkalla doyen <laughs> ana lan ngay nuyoo waa réew mi jox leen seen wàccuwaay bu ma nee assa <laughs> mhm. laamu rek laa cay teg mhm. waaye dolli ci alay mhm. ah kum kon kum <laughs> bu ma nee assalaamu alay ba ba ca boori kum dama naan maa ngi nuyu bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax man nuyoo professeur laa bëgg professeur kii di mu tudd déedéet keneen ki keneen ki ki nga doon toppandoo professeur kii ah euh, kii kii. Adi Wade waaw Adi Wade man nuyoom la. Adi Wade pas Adi Wade. tulle moo di. waay daw. ma tax ku tulle moo di. wa barakaatu. moom Adi Wade gannaaw bu ñu sant yàlla. julli ci yonent bi. ndeysaan te dëgg-dëgg tey. am nañu mbégte ci jàkkaarloo gi fii ci télévision bi. di nuyu bu baax a baax waa Louga doon sàcc ba si rek sàcc ba noonu rek altier rek montagne ak jox naa ko sëñ Louga ak Touba Seras ak Medina Garaas ak Bambo jag gannaaw raay ak waaye bu ma nee bëri dugg kër Cheikh Kabir Mbaye nag bàkk ba yaakaar naa ni miin nañ ko ci kër gi. waaye nag mhm. loolu siyaar lay doon. Mhm. foofa faaw ma dugg fa ni kansul ku noo si bi eh. fa lillahi xadu jaani fa kay fa laa wa rahmanu na jaani kansul mati safira haydul hudaatu bihi nalomunahu waramu haalatul jaane bu ma fa génne damay naan yoom mu kër Cerno Basir Taal ni basiru na وارث عن جده عمر مسيرنا وارث عن جده عمر waaye nag boo bokkee ci Seexul Xadiim nga xam ni mooy sëriñ bu mag bi nga xam ni tubarkàlla mooy borom tukku bi soro bi ci ci ci mm. ci sëriñ bu bi mm-hmm. nga xam ni moo ni woon lam yabdu misal Mustafa Muhammadi sirran wa jaaran fil baraya samadi madallana al islam wal kufra maha wa bi nasiyati li kulli samaha yaqudu fi sahiri wal batini ma ta'ahu fi lillahi fi kulli zaman ñu ko deet na mu ni ma ngi ila jeewal ni sa minillah inda jeewal iblis inda jeewal iblis isna daytuhu bi ya wali mm-hmm. ñu Mm-hmm. ñu ne ko fan gëj yow yooyu Cheikh Ahmad Bam mu dem ci sindi ni wa kun mu aysan lana min sarri si hasadin maxsari famin wa sarri ani allahu mm-hmm. wa sarri sihrin wa sarri xalqin sihima ma joni wa tawasami allahu mm-hmm. ah? yor leen numéro pap <laughs> numéro pap an yor leen ne ko ne ko siira man xam naa sama xarit la gar na ma sore am nga problème waaw <laughs> numéro pap am la soxla gar na maa ko mboq mu ni der Pape An ma jàpp ko xëj xëj ko ba mu ñëw ma bëkk ko ni ko neel siira mu ni a ah, siira. ndeysaan. dala doxe di dem moom Pape An Mor ma xëcc ko ba mu ñëw ma ma ma ma ko mbagal ba pare ndengeñ ko takk ko ca kaw nag téq ko téqum jàllawle mhm. ni ko oustaz Mor waxal mu mu mu muy wax xanaa kon xanaa kon yow yaa peñe woon peñe woon Abdourahmane Ba ba mooy mañ wa dag dëkkatil jibali aybati ba Abdou Karim mooy firi génn ko ni ciix peñe ko mbëkk ko tëpp mu jékki-jékki ni bërit eh. daan ne ma géntu bi gi nga gént may <laughs> ko xam ah, ne ma gént googu wala waaye la <laughs> di gërëm bu baax a baax producteur am saw Sidibé uh-huh. di ko baax di jigéen boo xam ni ñu jàngal mm. ci Sénégal bari na. Mm. vraiment di femme bu am solo ci réew mii ñu toll di ko gërëm di kontaan ci moom bu baax a baax a baax euh, père mu mel ne <laughs> vous avez la parole. ay ayca ziar ko bu baax jox ko wàcc waayam sëriñ Abdou Lahad Kéemaan tubaarkàlla di ko ñaanal gudd fan ak wér ci barke yonent yàlla Muhammad mm. ziar kullu koo xam ne bii ne sëtub Cheikh na Cheikh Sadbu nga pare ko Chérif Alwali Maane Njaay di def lu ñaaw te du ko wax te du gis ku koy wax ay dara eh, Alwali Maane Njaay yow nañuy bégee waaw kooku Cheikh Mohamed Fadel lay baayamul du Cheikh Mahfoud du Cheikh na Cheikh Samb nu ziar ko bu baax a baax ñaanal sama sang ba Chérif Saay ay dara tubaarkàlla Cheikh Al Mahfou Chérif ba ay dara nu ziar leen kull kuy kilifa diine rek ci réew mi ñi ngi lay jox sa wàccuwaay di la ñaanal ci barke yonent yàlla Muhammad bu ko defee nag tuwaar kàlla nu daal di jàll ca côté càmmoñ nga delluwaat fa fekk fa doomi yoof ji ak doomi pikin ji mm. juddoo pikin màggee pikin yaroo <laughs> pikin tuxu si yoof <laughs> dégg nga ma li ma wax juddoo pikin yaroo pikin màggee pikin tuxu si yoof <laughs> ba pare nag am am di xel ñaarug dem deme naa si génn Sénégal ñibbi Gàmbi eh. yoof yoof waaw fit woowu moom rek moo ko am fit waaw juddoo pikin waaw fekke baax pikin waaw nga ne fa yóolu pikin tuxu yoof tuxu yoof ñu waay ñu ne kan ca yem nga romb jam ñaajo <laughs> romb si jànjala mbere romb saara yabaa ah. dem kawoon ah. ñu ne ah. dem direction Gambie yàlla man loolu ma jaaxal lu jaral lijjanti mooy est-ce que Ndiaye yorul nationalité Gambien Ndiaye Ndiaye seetalal sa bopp ndax ñi ngi naan xam nga fa takk suuf luñ ko jiin mooma de Ndiaye leeralal Euh, bienvenue dans les antennes de la Télé Futurs Médias. Euh, vraiment, nous sommes vraiment fiers d'être ici, en face de vous, mm -hmm. chers téléspectateurs, ah, pour faire euh, cette émission. Mm -hmm. Et espérant que cela vous fera plaisir. Mm -hmm. di nuyu Pikine gi nga xamante ni fa la fekk baax fa la juddoo fa la yaroo. Mhm. Euh, fa la màggee. Mhm. di nuyu waa Yoff ki nga xamante ni fa tabarakallah fa la takkee soxna. Mhm. fa la amee njaboot. di nuyu ahlul beyti laay di leen ci yax bu baax a baax waaye aussi di wax waay Gambie ladies and gentlemen mënoo mm-hmm. euh, foo ñàkk bañ a dem welcome to your émission I hope that you will enjoy it eh, so I am with me and then my friend mm-hmm. euh, Père Bohar mm-hmm. and then my friend Douaya and then uh, my friend Chamas and Mustafa my friend I hope that you will enjoy it kuy jooy. I hope that you will enjoy it enjoy it. Ah, enjoy it eh, Ndiaye Ndiaye wuy Ndiaye wuy li ci écran bi. Vieux Diouf nee na kii ngay am gaan. Eh. Eh. <laughs> Vieux nee na kii ngay am gaan. man naar naar yaa ngi. <laughs> merci Vieux Diouf. Vieux Diouf merci Vieux bàyyi naa leen ak yàlla <laughs> wax leen lu leen neex waaye du bu ma duggee Gàmbi ah. damay nuyu première daam Sadio Mballo Baro. digg di ko nuyu bu baax a baax sunu yaay bu baax jooju. Ah. waaye du nuyu sunu papa ji nga xamante ne nii boo ñu dalal biir TFM. Ah. fonk ñu lool respecté ñu lool. ba foo dajeeg moom ci teraangaam sunu borom dafa ciy dénk teraanga. muy Père mu Seck. sëcc rek Youssou lool. chef de protocole. chef de protocole président Youssou Ndour. barke Seydina Mohamed waaw bi ma daje. kenn du ko fal yembar. kenn du ko fal ku yaafuus. barke yoon bi ma déggee bi ma waaw jërëjëf. est-ce que du ma jox la. jërëjëf waay jox ko ko ah. waaw di ko nuyu bu baax a baax baykamu ndax bi ñu dajee Gambie barki démb. Ah. ci barkeem yàlla dénk na ma fa teraanga as teraanga. Mhm. ci barkeem. ndax it day toog joxoñ la am ku mu joxoñ joxoñ la te loolu ku yàlla barkeel moo koy def di nuyu xaritam ba soppeem ba doomu ndeyam ba kànku si soxo nekk fële ca euh, Sénégambia mhm. borom Kanks Fashion mhm. moom nga xam ne boutique bu baax di nuyu Mor VIP nekk fële ca marché Serekunda mhm. Cheikh VIP nag fi ma génn saa su ne mooma fii génn di ma solo lu rafet ndax per ñun dañoo am ñoo xam ne ñooñu ngemb ku ci mel ni Cheikh VIP ku ci mel ni Fadia Shop moo tax tiituñu dara fu ñu génne fu ne télé bi respecté ñu ndax it wax dëgg yàlla kër ga ngay liggéeyee da ngay fexe def la tolloog doole ja mënuñu ko gaa waaye ñu jéem a defal mhm. parce que TFM VIP la mhm. kon dañuy ñun ñëpp dañuy fexe mel ni VIP ni ñoom mhm. waaw di la nuyu bu baax a baax di mu nuyu Elimane Ndiaye di ko ziar waaye nag di beral nuyoo ak jaal ki nga xamante ne mooy Tayru Sarr waajurum bu góor dafa génnoon àdduna semaine bële passé ci fi yàggul dara di ñaan suñu borom yàlla na xippee aljana mhm. àdduna bi yëpp seet si ko mhm. ndax nit ku baax la mhm. nit ku jub la nit koo xamante ne lépp lu mu yar da koo lew domm domm domm kooku man mën naa koo waat ndax wax dëgg yàlla liggéeykat la te jàmbaar la yàlla na ko yàlla defal jàmm waaye tamit di am xol bu sedd mhm. xol bu féex mhm. xol bu neex mhm. jàkkaarloog sama jàmbaar ñi nga xamante ne nii bégal askan wi rek a leen tax a jóg di leen ñaanal yal na seen jàmm yàgg yal na seen jàmm yàgg yal na ngeen dem màkka màkka màkka kulibanta foofu papay na ngeen dem màkka kulibanta jërëjëf Ndiaye. nit li woo ma ko. <laughs> Ndiaye non Màkka Baraage sax laa defe woon lay Baraage gi ca Louga. <laughs> man pour man eh. Màkka Baraage gi ca Louga lay wax. la ban te yàlla nga fa dem yow. mu wokk foo xam ni dafa xasan te ma wokkaat fa. Eh, eh, muy ci Tahirou Sarr. Mm-hmm. man keroog laa ko mas a gis. Mm-hmm. mais mosuma gis ku baaxee. oyofa ne kooku mhm. ku bëggee lu baax ne kooku ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla guddal fanam waaye di gërëmaat koo xam ne ku ñu fonk mhm. ku ñu jox loo cër mhm. ku ñu respecté koo xam ne fu mu ñu fekk sagal mooy président directeur général di Youssouma Jigéen ak fonk fu mu fekk nitam lu mbooloo bari bari dana wane ni kii ci sama njaboot la bokk kon président directeur général cër bi ñu jox ak fi nga ñu teg ñu ngi la koy delloo di ñaan yàlla yàggal sa taxawaay euh, li nga def ci Sénégal nag yaayoo nga sax ñu tudde la lu ne ci réew mi ndax macha allah kon yàlla na yàlla yàggal sa taxawaay jërëjëf Ndour waaw waaw waaw di nuyu tamit ki nga xamante ni mooy président Diamé Dansokho di ko nuyu bu baax di ko seet waaye per sànq rek wala démb rek sa copain mu ngi la doon laaj Ado Ado maam Adama Gueye ah, borom Sweden borom Sweden borom ah. Gambia ah. borom Guest House borom euh, tranquille borom bijilo waaye nag di beral nuyoo ki nga xamante ne ni mooy Modou Kara Thiam Modou Kara Thiam borom tureel door bi mm-hmm. moom mi nga xamante ni tubarkàlla yàlla da ko may loxo bu set lépp lu mu tabaxul baaxul mm-hmm. digg lii di ku mën liggéeyam mm-hmm. yàlla na ko yàlla defal jàmm Modou Kara sama jàmbaar jooju jërëjëf mi ngi noonu kontaan nañ ci gars yi bég ci ñoom bu baax a kenn ku ñu dégg fu mu génne na ma ko waxee woon ca départ ba mën leen kenn ku ne ci ñoom mën na bis tubarkàlla sunu borom defal nanu loolu ndax nag nee naa am na loo xam ne bii ne da koy sante sunu borom billahi sant sayduna muhammad sant suñuy way jur ndax nag wax dëgg yàlla réew mi bari na doomu aadama lool waaye tubaarkàlla ba ñu ci jëlee ràññee ñu ci teg ñu fii ci kër gi nu war di jàkkaarlu ñii di waxtaan ak ñoom loolu ak sant yàlla la xam nga caa léeg-léeg damay faral di wax naan bu ñu la joxee micro boo nee salaamu aleykum rek raw nga buum ba teg raw nga raw nga buum mm-hmm. sama mm-hmm. boo nee salaamu aleykum mm-hmm. mën na laa déglu waaye boo ne dama ni. Mhm. ñaare daay taxaw. Mhm. da wax ba yeew sa bopp. waaw wala nga wax yeew nit ña. loolu wér na. léegi nag ba ba léegi nag balaa ngaa dem. Mhm. na nga na nga xam bu baax fan ngay taxaw. Mhm. li naan da ngay tourner la ton langue. Mhm. mille fois. il faut avant de parler il faut rouler ta <laughs> sept fois. avant de parler. bilaay jar mille. jar na mille. jar na mille. waaw jar bu fekk nga nekk ci réew moo xamante ni daa naqaree wax. waaw. nga nekk ci réew moo xam ne daa naqaree waxe am na ci foo xam boo ko waxee ñu ne day dóor wala nga boo waxee ñu ne daa am lu mu ciy séentu boo waxee ñu ne daa am leneen fu mu fu mu bëtam kon boo balaa ngaa wax il faut rouler ta langue loolu wér na gis nga caa caa ma xamal la ñaar gis nga booy wax ngir bëgg sa darajay bopp doo wax dëgg mukk dëgg la booy wax ngir bëgg ci nit dara mhm. doo wax dëgg mukk booy wax ngir bëgg lu neex doomu aadama doo bëgg doo am dara. bu ma tàngal ndax dama laa bëgg a wax ñaar. yii dama la koy jox kado. waaw. bëgg nga sa baaraam bu dee mën ngaa wàññi. ñeent yii waaw. foog nga xàmmee leen. waaw bi ci njëkk mooy. <laughs> foog nga xàmmee nala nala. nala nala. nala nala. waaw foog nga xamee nala duna. nala duna. foog nga xamee duna nala. dula nana. foog nga xamee duna duna. duna duna. ñeent yi foog nga xamee leen. waaw mais il faut l'expliquer. benn bu nekk waaw mi ngi ñëw mi ngi ñëw mi ngi ñëw. waaw nga xam ne noppi noppi ñëwal dama ni waaw. xam nga li nala nala. nala nala mooy. koo xam ne boo ko séenee nga mu ne ma nga. waaye bu waxee nga naw ko bu jëfee nga naw ko. Mm. waxam ak jëfam benn lay doon. Ah. ba nga sa baaraam. ba. day méngoog dix ba. ak benn la. bu taxawee nga ne bu waxee nga ne wax na. bu jëfee nga ne jëf na. Mm. enquêteurs yi doguma la noonu la ñuy def. Mm-hmm. buñ la dee déglu. buñ la nuyoo ba laaj la. bi ngay njëkk a wax. li ci digg bi yépp dootuñu ko déglu. dañuy bàyyi ba fin ba ba ba ngay tëj ñu jël premier ba ak fin ba méngale leen xool ba xam déggoo na am diit foog ñu xool nitam kàddoom ak jëfam ba xam na mhm. bu méngoo rek ngay ngay nala nala wér xam nga bi ci toppa mhm. nala duna nala duna xam nga lu nala duna mhm. koo xam ne boo ko séenee nga ni manga te bu waxee nga xeeb ko kookoy nala duna nala duna mooy nala duna waaw deux trois bi xam koo xam ne boo ko séenee xeeb ko uh-huh. te bu waxee nga naw ko dégg nga maa bu baax koo xam ne boo ko séenee uh-huh. xeeb ko uh-huh. te bu waxee nga naw ko mm-hmm. laaj ma bi ci des bu ci des ñeenteel du na du koo xam ne bu waxee nga ne once bi laay mën a si tane jib bu jëfee nga ne once bi laay mën a si te daa bëri ci réew mi mm-hmm. à vous la parole kooku seetaanee laxasu ca moom te yàlla na ci musal est que am na ah. am na ñoo xamante ne ci fii ñu nekk ci àdduna dañuy tiit rek wax mm-hmm. waaw dañuy tiit di wax waaw tayuñu ko dañuy tiit rek wax lu ñu wax baax na boo leen déggee. positivement wala négativement seen yoon nekk ñoo wax naan ba noppi rek. Ah, man nag man nag ox ki ma ci gën a tiit. Mhm. mooy kii fëgg dënnam. Mhm. naan man a naan lu ma yéene euh, euh, nit ci lu bon. Mhm. yàlla naa ko ca jiitu. fekk ca xol ba. du dëgg. maa la loolu. te bari na ci gën a ragal te loolu du jeex. te te bari na. ak a bari. xalaat yoonu daal. gën gën gën Umar gën ana saali rang <laughs> eh, eh, wax ñàkk yi ci ban hôpital la njëkk a dem ñàkk yi am na lu ko jiitu mooy xaalis bi eh, très bien jaay léegi bien bien bien may nu may nu kilibu simb bi nu simb ba pare après ñu ñëw xaalis bi ñu jox artistes yi ba xam Sénégal ba senegal Sénégal nun nun nu xam ba xam. nous sommes qui nous. ba xam nun nous sommes qui nous. Ali fan mi nun dala kel kitab. laa rey ba mu jokko jokko jokko wala tàggu wala wala sakkat ko aw li aw li baa almomi bul ko laal eh, falaati moore bul ko laal jala laalata njaay kay ne njaay daf ah. lii ah. Ah. daf ñuy fàttali ko à l'époque xamante ni ñuy ñëw dëkk Grand Yoff mm-hmm. dafa am ay gaynde yoo xamante ni nii dafa am marqué seen empreinte mhm. xaaral caa la ñëwal dafa am kenn ku insisté ci ligne bi dimbali ma rek jël ko salaamaaleykum maaleykum bu baax Diop nga ma nga def. maa ngi si foo tudd ak fooy wootee. foo tudd ak fooy wootee. noo tudd nooy wootee. Euh, man dama soxla Ndiaye. Ndiaye. ah. waaw laa soxla. mi ngi nii waaw salaamaaleykum. Ndiaye. waaw madame. ça va ah. noo def. ça va bien madame ça va. non Ndiaye passe ma Ndiaye s'il te plaît. Ndiaye mooy wax man maa wax ak yow nii wax ak yow s'il te plaît. Ndiaye. waaw madame. comment vas-tu. ça va bien alhamdulilah. man la Daba Noor Foire. Euh, Daba Noor Foire. Mm. Eh, ah Daba Daba mbay ku li koog daaw surtout sumul mbay sin ma def sa mbéy. Mm. Mm. chéri ba doo munoo ñaaw te ku la nar a ñaawal ñaaw. Eh. xam nga ni ñàkk la tegawul a gàcce sa neegu yaay du ndool Cheikh Badou Laye sama xarit nga du maa ngi lay woo doo jël ndaare Cheikh daba kaay doo jël ndaare mais daba na ma naa la ñoo la allo Ndiaye kontaan naa. jërëjëf waay sama xarit bi ak a baax naa Ndiaye yow yaa ma tax a toog sànq ba tey maa ngi doon xaar. ndeysaan ma commencé. ndeysaan vraiment parce que yow moom yaay sama artiste préféré. ndeysaan yow tu es un dans le sang. Mm. ndeysaan day wax. foo romb tëj fa foo jaar tëj fa. yàlla yàlla sàmm yàlla la fa la. mosal la si làmmiñ courage fépp foo bëgg ak yàlla suñ borom bi yeggal ah, il faut ñu wut ndox ci façon nit ku baax nga nit ku oyof nga nit ku disponible nga daba kii mi ngi jooy waay moo toog macha allah masa waaw yal na la yàlla fay sa xol waaw yàlla mosal la si noon yi musiba tout vraiment ne pleure pas nag bul jooy danga gaaw a jooy ñu ngi pleuré kay noppil daba waaye wax ak nit ba ñu pleuré nga mën a rejeté waaye daba rejeté waaye ah Njaay bi ëpp na tonton Tafa nuyu de. dabal dabal. waaw léegi jooy na. dabal parole parole parole rejeté dabal. ki ngay waxal ñu ngi jooy. waaw Ndiaye bi wóorul moom bi moom wóorul. Ndiaye bi wóorul. waaw daba mais daba kontaan na daba ah, daba kontaan na. Ah, ah Thiam ah Thiam nga ni ko. ma ne ko Ndiaye. doo xale yoroo yëfi xale. am na ci yoo xam ne war te mag war ko def. laa ilaaha illallaah da nga doon jëm kaw. soo di rejeté. rejeté waaw. yooyu rejeté. Ndiaye rejeté. Ah! yàlla na yàlla yi baax yàlla na suñu borom def jàmm. waaw caa caa caa waaw. jaayoo Ndiaye. gis ngeen. <laughs> Euh, xaw ma ministre de la culture la xaw ma. directeur euh, des arts euh, très bien. revenons à nos moutons. xaalis bi ñu jox artistes yi. Mm-hmm. xaalis bi ñu jox artistes yi nan ko joxe ah. waaye léegi man damaa bëgg a xam. ah sunu ministre de la culture nu mu tudd. xam dama koo xam man. da ngeen koo xam. Ablaye Diop nu mu tudd Vieux Diop. tudd Ablaye Diop Ablaye Diop la tudd. Ablaye Diop borom Sédhiou. Ablaye Diop. Mm-hmm. ñun dana ba genn wàll gex. nan artistes yi boo leen xaajee. 70 pour cent jotuñu seen xaalis. Mm. am na nañu jot nan nag. yàlla nga waxal de. am nañu man sama jabar sax jot na. Ah. sama soxna sax jot na wax dëgg yàlla. ndax arko pikin la ne. ak ah, xam nga mbir yi mais daa daa daa xam nga xam si tamit uh-huh. faaw ngeen bàyyi ko xel. Uh-huh. man ci ñi ma gis ñu jot. Uh-huh. dañoo adhéré Arcos yor carte Arcos. Uh-huh. ah yow jot. bo man jot naa. ah damaa ah, ah, adhéré Arcos kon loolu erreur am man jot naa ma nga kon léegi xam nga parce que man na. parce que ah, man parce que xarmaagal uh-huh. parce que man euh, ci ci liñ ma wax. Uh-huh. dañ ma artistes yi nga xam ni. ñoom la état reconnaître uh-huh. ñooñu rek la état mën a jox te ñoo ñu mooy ñi nga xam ne ñoo bokk ci structure yi uh-huh. am carte arcos uh-huh. ñu reconnaître lañ ci arcos mais bu fekkee bokkoo ci benn arco amoo carte amoo dara aussi pour nga am day jafe parce que doo bokk ci liste ba ñu ñu lay bind man nag arco Louga laa bokk moo tax ñoom bu ñuy seetlu président def moo uh-huh. parce que am naa carte Arcos am naa lépp mu jox ma. Uh-huh. mais de ah, leneen lu cay am nag leneen lu cay am nag. man xaw ma décision yi fan lay jógee. non foofu laay waxee. Mm-hmm. Mm-hmm. foofu laay waxee bu dee carte Arco la. Mm-hmm. man yor naa carte Arco boo xam ne leer na ma ni ñi ko yor ci comédien bëri. mais Arco ba nga bokk moo lay jox. carte bi moo yor. comme sax carte d'identité la. kan moo ko am fi kenn am ko fi. te yor naa carte professionnel artiste. déggoo fi may waxee de. yow man rek yow waaye léegi man déglu tuuba. ndax yaa ngi may dégg kon kon moom war gee boo fay bindu. ça date de trois ans xaw ma quatre ans. sama tura nga ca biir sodaam ñoo bind li nuy wax ñu ngi may seetaan ñu ngi may dégg parce que yaa ngi may dégg kon xam nga du question sax que ne xaalis ban nuy jox ndax li ñuy am ëpp lan nuy jox fuuf mais maanaam bu de maanaam nun dañuy wax di waxaaleel ñeneen mm. ndax daa bari man ñu ma gis ñoo xam ni mm. bu njëkk ba bu njëkk ba dañoo am mm-hmm. te bii nii amuñu te ay artiste lañu nekk ci ay arco mm-hmm. waaye léegi ma laaj bokk ca biir arco yor ay carte membre arco mm-hmm. adhéré ci arco ne ci groupe yi te yoruñu fukki dërëm te ba pare ñi ngi jël ñoo xam ne duñ ay artiste foofu laa bëggoon li may wax day leer ñoo xam ne duñ ay artiste te ba pare ah, envoyé nañ leen cent cent vingt trois mille ah, nangam ah tamit ah, maa xam naa lu ma wax waaw kay bàyyi foofu laay waxee loolu moom c'est pas du tout <coughs> ban jàkk vieux jàkkaarloo wuñu ay artiste lañu lii dañ ne nan ko boros bala ñoo romb fenn ndax ay artiste lañu gis ñu naqari dañ koy wax damay rejoindre ci kii li muy wax. Ah. am na ñu bokk ci ay groupe. Ah. te jotuñu. Mhm. comprendre li ma wax ni bëri na uh-huh. moo tax suba dañuy wax ni nan def réclamation ah, pour dem foofu <laughs> man ci groupe laa bokk te jotuma keneen ak keneen ci groupe la bokk laa yor sama groupe su ma génnee groupe bi uh-huh. quelques personnes ñoo jotul donc am na ñu bokk ci groupe ñoo xam jotuñu uh-huh. xëy na erreur la boo xamante ni parce que ministère dafa jël xaalis bi envoyé ko euh, ñi envoyé ñi envoyé ci benn transfert la ko envoyé ñoo ñooy envoyé su fekkee sa tour dafa ñoom tam am na tur yoo xamante ni erreur bi ci ñoom la parce que dañ ko abrégé donc suñu la ko envoyé sa portable soo demee ci euh, euh, kii jëlukaay bi ci jëlukaay bi dañ tur bi parce que dañ ko abrégé ah, donc may ma jeexal léegi ñoom dañ suba am na réclamation bi ñuy def réclamation bi nag nañ ko jaarale ci yoon ñi nga xamante ni bind wuñu yoon bind correctement ñi nga xamante ni kenn bi comme sama père ñi nga xamante ni am na artistes yoo xam ne c'est fii leen bokk ak fii lan bokk. dañ ma bàyyi dañ leen reconnaître parce que àdduna bi yëpp moo leen xam. Ah. donc ñooñu même bu fekkee ni tey ji affaire am na. Ah. ñooñu dañ leen war a woo individuellement. Ah. moom xoola doguma la de caa ngir yàlla rek benn minute c'est que lii dañ ciy dugg tuuti nii rek bàyyi ko dugg ci leneen mais comme li ox wax laay wax buñ waxant nan waxante dëgg te yàlla tax mënoo tudd théâtre Sénégal tudd artiste Sénégal génn fi ñu toog ci plateau bi hmm. yàlla nga waxal de mënta ne fi neex waxe ndax lu mu dee dee lu mu dee dee boo duggee YouTube wala nga dugg Google wala foo mënti dugg boo tàppee suñ tur fekk lan fi def mm-hmm. donte ji am njariñuñ dara parce mm-hmm. que dégg nga wax bi président de la république ci boppam xam nanu mm-hmm. soxnaam xam nanu parce que yaa ngi may dégg président de la république ca boppam laay waxutuma sax waxi ministre de la culture président de la république waaw bu ay doomam di anniversaire wala ay arbre de Noël mm. nun la ñuy woonu dem animé ko mm. dëgg anniversaire doomam. man ak waaju baax ñoo ko animé. dëgg président de la république. man ak waaju baax ñooy animé anniversaire doomam. dëgg la est-ce que dégg wax bi arbre de Noël bu ay ci réew mi ministère bu mu mënti doon ba ci ministère de la culture mii tey. Mm-hmm. ñun ñii la ñuy woo ñooy futti ko solu di bigal xale yi. dëgg la. kon li Ox wax laay rejoindre. Mm-hmm. dafa am na lu dafa jaadu bu ñëwee. Mm-hmm. non nun nan nu woo. waa léegi mën naa dugg fenn. ndax dégg ma. Ah, man déggatuma la. <laughs> waaw léegi la parole. <laughs> ci gën a métti. dañuy <laughs> hmm. xaalis pour. xaalis pour ci ñan la jëm. pour artistes yi. Hmm. pour artistes yi. nag. man man man caam. Eh. li may wax kenn nit liwu ma ko man caam maa ni. Eh. gis naa ñoo xamante ni duñu ay artistes. Eh. am ci te ñuy artiste amuñu. mooy caa man man nga maa mayaat benn deux secondes. waaw foofu laa bëgg a yeggali. deux secondes. Ah, man sama jabar sama soxna. arko la ne. Mhm. ñaari yoon lañ ko envoyé. ci télé laay waxee. Mhm. cent cinquante trois mille cent. cinquante waaw cent vingt trois mille. cent cent vingt trois mille sept cent. deful dix minutes nu envoyé wat ko quatre vingt dix huit mille cinq cent. message yi ma message yi ma message yi ma ko liiral. léegi mën naa envoyé est-ce que dégg nga wax bi. léegi fa laa bëgg a dimbali fa laa bëgg a dimbali gars yi ñoom ñoo war a xam suñu xam nga bu ñu waxee bu ñuy wax per bu xar. Mhm. per bu xar tuddul per bu xar. Mhm. am na nu mu tudd am na nu mu tudd. Mhm. tey bu ñuy wax Tafa. Uh-huh. Euh, euh, Moustapha Moustapha Gaye la tudd. dafa am nu mu tudd. te bu ñu xoolee suñuy tur ña nga fa. te pourtant. jarul sax midi à 14h. waaw. ama ci loo xam ni mi ngi fi ne gaañ. waaw tudd mooy vaar. waaw tudd xew yi illa yomi di. xam nga xam nga ba ma xam nga moo tax. xam nga sama yaay eh, man fii daa naqaree waxe tur moom. waaw fii daa naqaree waxe laa sama sama kii la sama erreur la mooy dine sama numéro téléphone moom am yow envoyé woon nan la. yaa ngi ko envoyé na mais ah. bi ñu seetee numéro ba. que moom numéro bu ba mu gaañoo yàgg na. numéro bañ ko envoyé. la la remplacé waaw man 42 la ñu def 24. waaw waaw kay waaw kay waaw léegi nag xaalis bu amee. bu la envoyé mu am erreur. Hmm. xaalis bu amee 7 jours dafay delluwaat fañ ko envoyé woon. dëgg moom daal li ma ciy wax. léegi na problème mooy est-ce que bu xaalis yooyu delluwaatee. dina delluwaat dinañ ko revenir waat ci ñu ko man daal xam nga xam nga euh, doog dooguma la doyen dooguma la ca euh, ox. dooguma la c'était c'était juste rek pour wax ci tuuti. Ah. du sax looloo nu fi i mais c'était juste maanaam pour cof ci tuuti rek. pour ñu xam. ndax xam nga président mën naa toog. ne artistes yëpp jox naa leen. Mm-hmm. te fekk nun gisuñu fukki dërëm. dañ koy leeral ba mu leer est-ce que dégg nga wax. man damaa mës a gis très bien looloo taxoon rek. maanaam ñuy leeral tuuti ndax même même bu dul ñun. bari na ay yoo xam ne bii ne. Mm-hmm. dañ koo soxla. Mm. ñaata nit ama woo dama caama. billaay wallaay ñun artiste amuñu ci. bu nuy wax bëri na wax te yàlla. bëri na bëri na artistes yoo xam ne barke yonent yàlla Muhammad man gis naa tey tey tey tey tey marché Grand Yoff ci place Thiamas mii barke yonent yàlla Muhammad artiste plein talent kese karaaf la mujj di yor di jaayataay. barke yàlla ji Malick yàlla toog nii maak moom place Thiamas ñuy waxtaan mu may expliquer boppam. ah duma ma tudd sax tur. xam naa mais artiste plein. dëgg la. am lu mu wane. karaaf la yor. di jaay attaaye nii la toogee man place su Thiamas mu may expliquer boppam. ba man fi ma toog man damaa fàtte sama bopp. en tout kon artistes yi am na ñoo xam ne dañoo sonn. am na ñoo xamante ne moom. artistes yi sonn nañu. nañ leen <laughs> ne. Ah, vieux. may nu clip vieux. vie ko am sutura boo xamoon li xew ci plateau bi. plateau loolu après danaa la koy expliquer. pour nga mën a comprendre. parce que aussi. pour waaw aussi aussi. que aussi. ñu lan. Euh, y a rien à ñu xool clip bi nañu xool clip bi. ñu ñëw ñu xool clip bi. nan ko xool xataab xataab maa ngi koy bëgg. non yal na yàlla guddal sa <laughs> me démarrer. Prends deux fois, tu sais, j'ai fermé les jàmm. am na solo. xam naa ni boo guddeew fan. nun boo moytuwul daan gàtt fan. yow Vieux ndax soxor ngay ñaan nga. ay magi jëmm xëy ca fajar liggéey bay bëgg a dee. caamaas mi tey li fecc ci sabar. war kàlla xaw naa dajji ko. barke te noo nii suba 9h. lan nu kon wiyee war nga nuy suturaal. léeg-léeg di nu bàyyi nuy dal waaw un kii waaw del am ci nit ñi nan toog nan toog nan la seetaan defal loo neex nan la seetaan waaw ah, doo de <laughs> faale sax. jërëjëf. Vieux Diouf ci boppam laa doon faale. dama ko sax dama mën naa wax ñaari baat. tooy ju chronique lay dal. waaw mën naa wax ñaari baat. waaw jëlal ñetti baat. Euh, vieux Diouf. Ah. dana ko sant liggéey dana ko sant. <laughs> wala rey nit wala wala dana ko sant pour mu rey nit. c'est que xam nga xam nga vieux armée bee ko wutloo élément. moom dégg naa ci armée moom ancien militaire la woon. vieux li ko naqari. couvre-feu bi muy liggéey si. <laughs> loolooy dagg xol. waaye léegi ñun lan lañ ko def. waaw <laughs> yow bu nu gisantee lundi ba lundi te guddi lay doon. wax dëgg yàlla. laps nga jàpp nit. di écarté kebele écarté kebele écarté kebele leer na ma ni ah. soxna see yéey nopp bi naan koy da ngaa ñàkk fayda ah, waaw ñëpp di liggéey bëccëg ñu ñu bàyyi ba ay minute la yóbbu ca télé ba da war a am fulla sa bopp yow vie vie la naqari da ngaa war a am fulla sa bopp vie soxna si la vie ragal daa tàppet soxna si ba cuuraayu heure bi xam nga ni nii nga ñuy def rey nu nga bëgg cuuraayu ma bi mën naa laajte benn affaire ci palaato bi laajte ñaari affaire ñuy defal ñu ay barrière ni intervalle ah xam nga lu tax xam nga lu tax loolu am solo. waaw benn waay nee na. Mhm. man takkum masque yi daf ma jaaxal. Mhm. ñu ne lu tax mu ne masque de yi dañ koy takk mu muur bakkan. Mhm. ñu ne waaw. ñu ne jàngoro bi léeg-léeg ko nit yore yoree tissooli wala mu sëqat maanaam ngelaw la luy génn ci moom. ngelaw la luy ngeen deene warta mën a bënn masque bi dugg ci biir. mu ne man li ma jàpp ngelaw li mën naa bënn masque bi dugg ci biir mu ne ko lu tax mu ne nit day jiital. waaw. bu ndaw ci biir. da jëm sori na. jël kilo teg ci. Hmm. am nu def. mu génn. te day génn. <laughs> <laughs> noo ko mente di ko gërëm bu baax a baax euh, Galaye Ndiaye président RTS bu Louga. <laughs> gala tonton Kabou de nga baax li ma wax est-ce que. delluwaatal ci la wala déggoo ma. mère Kabou ah. wala ne xam naa ne am na ko tëdd ak jabaram ci lal bi daal këpp na dee na wala dee na ba xalam ko <laughs> mi ngi naan non permis moo koo quoi. da ngay jagle lu bëree bëri. te terewul di ko nuyu bu baax terewul ren ndeysaan président <laughs> Arcos bu Louga Galaye Ndiaye di ko euh, bi mu am mm-hmm. di ko kontaane bu baax a baax a baax waaye duñu tàyyi proviseur mm-hmm. euh, Amsatou Sow Sidibé duñu jug ci di la sargal bu baax a baax a baax mm-hmm. di la kontaane bu baax <laughs> te Galaye moom it dinaa ko yóbbante Galaye noom Arcos Louga carte de membre bu am Arcos Louga yor naa ko ah. kon nag da war a séen déggoo de kon Arko Louga carte de membre carte de membre bu nu mës a jaay Arko Louga. seeti gi moom dinaa ko réglé. non président moom bu ko jotee ñu ñuy seetaan carte de membre. dina la woo moom galaay xam ne carte de membre bu nu mës a jaay Arko déggoo li ma la wax. Hmm. ngi sama biir oto bi. kon jeex na ndax déggoo. waaw yëpp ba ma ne déggu ba léegi déggutuma la man samay matuwaay président yaa ngi dégg per samay matuwaay suba woo aar bii may vitesse moom ñi fa ah, man la ca war yëpp dama ko yor non mooy dëgg quelques personnes ñoo ah? ngi lay ah, nuyu ndax kenn ku ne xam na ni ba ñuy dem 2010 Kaolack <laughs> mhm. arko Louga lan àndaloon dëgg la du moonu yóbbu mhm. Mhm. am déet yeneen festival yi ñu fi dem yëpp ba ñuy dellu ñun àndal Mhm. Arko Louga waaw 2012 ku nu àndal Arko Louga mhm. festivalu Thiès festivalu Ndar fu nu mësti dem Arko Louga la ñuy àndal la ñuy àndal dem ndax dégg gis na ma mhm. waaye dégg naa la waay ah kon président Galaye ah, suba na nga woo per am déet waaw nag daa bokk ci mbir mi ah, daal kon lool nañ ko close suba moom insha allah moom réclamation lañ jëm onze heures dina leer góor gi ca direction des arts waaw artiste boo xam ni amoo artiste boo xam ne joxunu la rek suba 11h cité góor gi ca direction. des nga bind woon dem mu leer. dem fa mu leer waaw kay bàyyi. <clears throat> yi nañuy adhéré di am carte de carte d'arcos yi da am solo lool. te xool booy kaas di am armit baax na ci. Mm-hmm. te xam boo xoolee xolo sodaaf gii nuy wax man ba may jël ay œuvre mm-hmm. bind ko tamponné di ko yóbbu di di di garder foofu. Mm-hmm. booba ca jamonoy BSDA la. BSDA. Mm-hmm. maa xam BSDA bi nekkoon ville ca place de l'indépendance. Mm-hmm. ndaw sa mm-hmm. yum. nu mu tuddati. kan ci si. nu mu bàyyi sax. te waaw booba moom moo. madame Sibi. madame Sibi. madame Sibi ba muy ne man boobu laa fa yóbbu samay œuvre ñu protéger ko. li may wax Momar Diaw. dañ naan ko Diop ca Sodaaf. mi ngi may dégg. maag moom ñoo foowandoo ñoo màggandoo ngumba mhm. sodaaf gii la ne ma Momar Diaw ba may yóbbu foofu ca jamonoy BSDA mhm. moom fekk naa ko fa ba ànd ak moom samay dossier nga ca biir mhm. ndax dégg gis na ma digg naa mais fan yi dafa dafa mel dafa am foo demoon marché Grand Yoff <clears throat> dafa maa message léegi léegi na ma père nuyul ma père at Ndiaye. waaw waaw léegi ah, oh, anam anam oh. Mamadou Sari. anam anam Mamadou Sari. anam nee na ma da nga faa ñëwoon yow. at Ndiaye. waaw ak mii. andamoon ndox koo koy borom caari mbawor. nee na mi ngi lay nuyu. ngumba ngay wàcc jël saret baa nga dugg Poso Mbar. digg lii. seen dëkk at mu ne Serigne Mourtala tante fa tante bu mag ca jamono. Mm. ca jamono. dégg nga ma. waaw yow lay déglu waay. waaw <coughs> ba nii mbas mee tax rek waaye at mu jot. Mm-hmm. jàng wi mag am fa ñun dañ mhm. daan jógee ngumba di dox di fa dem <clears throat> moom mooy doomi day El Hadj Doudou Gaye ca Ndar marché Ndar mhm. kanoon njaay jën ba nu mu tudd ay waay li lan la Pape Bey Pape Bey jaase leen waaw Pape Bey te xam nga tey ñu ki ñu sax mooy borom téléphone yu baax yo mooy mu ne nii man damaa yorul sama téléphone ndax ma njaga dama ko tere dan fa demul lekk jëf jaaf plateau bi yor téléphone moo tax ma sànni ko fële moo tax lu bari sax gisuma ko ne xam naa ni message sànna ma wax lañ ci tam vie noto waaye tey vie vie ñis ko duñ dem ku ko toppatooy waaw léegi vie nun li la naqari tegunu la ko dafa am loo xam ne sànq dañ ko waxoon vie Diouf xanaa huissier da laa indil kayit vie Diouf sur place sur place vas-y à la parole ah. euh, mesdames et messieurs ah. <laughs> encore euh, boo defee plateau ñoo xam ne amuñ sutura. <laughs> yaa ngi weer sa bopp ah, dara ni. il va falloir euh, dégg naa gaaruwaale yi. non non père ma doon gaaruwaale. déet non. lu wa lu benn waay wax laa doon expliqué. ci feebar bi mesdames et messieurs. gaaru père mu ma doon gaaruwaale. <laughs> Euh, euh, euh, li ko wax a nekk xam nga lu musta am bu amee ci gan yi parce que ñaari siitaani yi. gan ñaari siitaani yi ñëw gan. ñaari siitaani yi gan yi ba nu ñëwee dañoo réglé seen bopp. dañoo réglé seen bopp toogaay seen toogaay ni buur. ba pare nag topp seen i ginnaaw. topp seen i ginnaaw. lu nu fi gis rek ancien yi ko fi def. te it bu benn ci ancien yi. benn ci ancien yi waaw kay parce que bu ngeen nee ancien yi da ngeen di tuuralaate. yaakaar ni Tafa parce que na ci eh, ancien vieux Diouf table day yëngu vieux na may ma may ma yëngu yenn saa ci soli day am fàttaliku day am non vieux vieux vieux wëral ma vieux Diouf mën nga doon dimbaleeg jaru bëtt mi yaa ngi waay vas-y mi-temps. c'est que damaa bëgg. mi va laa wax. c'est que maa bëgg. mi va zani wax. mi va zani laa wax mu naan avion bi yëngu rek mu naan ma vas-y. pël ba laa wax. pël ba dee ko waxoon pël ba tubaab ba tëggoon ak Paul Bari ko waxoon. il faut tegoon fii. Eh. yóbbu woon ma à l'époque. Eh. Chicago. Chicago càkkatu gun gun gun. la. déedéet Chicago Pepe Kale la woon. Pepe Kale la woon. Pepe Kale. Eh, non dem Nigéria. Pepe ma ca Kale ja. fu dem koo xam Nigéria yow. bari na yëpp samay kat yëpp samay xarit lan. dem na fa ay mbokk barke dem la fa jógee ngénte man am naa fay mbokk yow mii déedéet ak laabaan la fa demoon barki man bu ma nekkul woon Sénégal Nigéria laay ak laabaan la fa demoon barki dem ngénte Davido bi non loolu loolu vieux Diouf amu ko ay ñoom Diamond ay Davido ma ne la vieux Diouf amul loolu ñoom ñëpp ñoom ak laabaan de la fa demoon la eh, fii dafa yàgg fii kiiwul fii neexul waaw waaw lii moom jëmbee laam fanaana et bii la et bii la bii la bii la. Rose Milan Rose Milan. Rose Milan. xanaa lii mooy jëmbe. est ce que xam nga dafa am ay jamono. jërëjëf Massa Massa ma wax la ci lii lu nit tuuti nit. waaw. yow Massa Massa. Massa Massa tuuti ma wax la dara ci woy wi. il me voté ce qui président. waaw. guddi ñu toll war nañu xoolaat suñu bopp. waaw lii grand ñoom Sidi Ndiaye may may may may ma ñëw Ndiaye bul toog. waaw taxawal bi. may na tuuti. Vieux pose ko. Roger Milan. way wi bi muy am way bi muy am. tuba yéen daan sol waa li delloo si ko. waaw ñëw na delloo si na ko retour. <laughs> bu fekkoon da ngaa bëgg a dem choléra. boole ci tanaan. wala nga du mel ne grand yof jee nga xam ne dafa amoon sal barak wala njambaan. waaw njambaan ndeysaan bu njëkkoon. bu nu mosaan a fecc morceau bi mel nii. Mm. ah nag dañuy respecté nit ñi. Mhm. ndax bu njëkkoon yu bëri amatul woon. dëgg la sa day taxaw nee. Mhm. ku góor ki taxaw nii. Mhm. ñu jàppoo rus ngaa taxaw ak moom nii. ñu jàppoo dañuy jàppoo dëgg yàlla kenn di si séen. te caa dugg fii bu la sunu borom dog. daga daan gis ku téye loxo nday joor ki jàpp loxo càmmoñ ku ne ngàbb biteelub liisaa. waaw dégg te it caa la ca gën a ndaw si balaa nga koo masaana jël pour ngeen fekk faaw nga ne ko nga ne ko ndax tippoo naa la mu ne la waa tippoo nga ma ngeen ànd tippoonte ngeen nga mën a fekk waaw dama dogguma la ba pare la ci anecdote waaw <laughs> dama ne waaw dama ne laay lay la laa hmm. baale amoon na dëgg wax ngeen dëgg hmm. waaye jamono yi léegi yii hmm. gone ci biir nag la nuy baale te nag ah. yekkataan jugu fi gone yu yuuxóotu may ma sama anecdote may ma sama anecdote waaw Ousmane Kaay ah. way wi nga yox ni ah, may ma sama anecdote toog ñëw sa wax ma sama musique bii la genre yi. may fecce Mauritanie ku nekk. vie ñëwal. vie xaaral vie xaaral caa àggaleel nu teg musique bi nu fecc. léegi li ci gën a garaaw nu dem démb. bu njëkkoon da ngay jàpp ne lo ay mbax ay loxoom. Mhm. nga loxo. Mhm. Mhm. ku ne dawal la sa ginnaaw. walaay ndeysaan. nga xam ni rek ngay def. waaw waaw jamono yi rek nga daan def. ba arrière nii mu dem jamono di dox. jamono di dox. waaw ñu gën a jege. ñu waaw ñëw fii. waaw ñëw fii. waaw mu jigi ñu teg paa. galgal. <laughs> ah yow galgal. moom kay danga naan fii ba pare moom moom caa. Ah. danga naan ma wan la. maanaam danoo dem ba tafu bi nii. Mm-hmm. doyetul. ah doyetu tafu bi sàppi na leen. nu indi pombaas mujj di wëlbati di def. naan puyaka puyaka puyaka puyaka. di puyaka puyaka puyaka puyaka puyaka puyaka. bi ya ñëwal puyaka puyaka bi ya ñëwal. yee boo bokk la puya. xanaa xoolal bi ya ñëwal bi ya ñëwal. viens gaawal viens viens gaawal xam nga bombaas bi dañuy taxaw di ko bombaas boo rek taaral ko pu yàkka pu yàkka yow boo mbokk la yàkka <laughs> yow boo mbokk la yàkka pu yàkka viens ñëwal may ñu Michael Jackson black or white black or <laughs> may nu Michael Jackson ba ba nu mu tubaab ba noonu la tuddati black or white black and white waaw black and white noir et blanc Michael Jackson. may nu boobu nu nu nu nu nu. ba fekk na jamonoy Simof. waaw jamonoy funki nu funki. ak Simof Simof may nu ko ndax xam nga caa. borom kër yi danoo toog ni nekk ak seeni soxna. la bëgg a nelaw mënunoo nelaw. ndax boo demee am na ci ñoo xam ne ñu ngi doon werante bay bëgg a jàppan te dafa jaadu nun nu bégal leen. te li leen mën a bégalee mooy lii nu am. nit la nga mën a la nga yor. ca nga mën a baaxe ca nga mën a bone. nun lii nu yor. ci la nu bëgg a fexee ba soxna yi am na koo xam ne biir na ma ni soxnaam daa fayoon def nay fan booba ak léegi jëliwu ko mhm. te biir na ma ni boo nee mi ngi woo soxna si téléphone naan ko suba dinaa fa ñëw wala suba dinaa yónnee dëgg la léegi nag foog nu bégal leen dama laa bëgg a dolli ñaar waaw sànq da wax kàddu gu am solo mhm. mu ne mu insomnie muy insomnie insomnie <laughs> insomnie parce xam nga insomnie insomnie <laughs> mhm. daa bëri ci réew mi du jeex biir na ma ni borom kër yu bëri léegi dañuy insomnie waaw lu ko très bien nan ko détaillé. waaw ñu toj ko. ñu toj ko. laaj leen ma waay. laaj nan la laaj la caa. laaj leen ko ku rëgg. laaj leen ko ma ca. ci dëkk mooy. waaw. Ah. kenn du ko fanaan noonu ndekki amul heure bu xasee xëpp say bët jot na. vie xaaral waaw. jot na yosam ni. Mm. Uh-huh. jot na. waaw. ndeysaan jot na ni. jar na ko. nekk ci nekk ci gox am jom lool uh-huh. di wut loo am mbaaloo xam uh-huh. mu dëgër gicc nga war a dellu sa njaboot mu metti lool eh. nga toog uh-huh. lal bi nooy nit amoo ngoru tëdd si lal bi grand place bu ne rek fa jaar na maanaam maanaam li muy wax foofu jar na insomnie li ma ciy dëggale mooy waaw añ mën ngaa xëy lijjanti ji ko reer mën ngaa xëy lijjanti ji ko mm-hmm. waaye ndékki dañ koy fanaanu dëgg la waaye yaara gi nii tamit man dina jàpp insomnie te bu mu ngoontu neexul ndékki du am waaw yaara ngi nii jar na insomnie. Hmm. ban ak ban. jabar ju bëri wax guddi. Eh! ak jëkkër ju bëri wax guddi. wuy sama ndey liir buy jooy guddi. Eh! lii sax mën na ko comprendre ndax il n'a rien aa moo ko dal moo ko dal ah waaw waaw. bu dee bu dee jigéen el. bu wax el rek. ay xale buy jooy guddi. <laughs> yu nga gaaw li ma dal fan yi gaawam lay wax man ma yeewu guddi da ngay summi da ngay yaram da ngay am na ñoo xamante ni seen doom dañ ko jox effet nu mu tuddati sax garab yi nelaw gi ki ki nu mu tuddati ki Pierre Fall déet ki man kama yor daa kama yor daa amagum weer kooku boo ko joxee garab yi nelaw dootul yeewu ndax mooy garabu nelaw boobu whisky oo somnifère somnifère mani man kama yor kama yor de boo ko joxe somnifère dootul yeewu juum naa ba ne whisky de daa amagum weer am na góor ñoo xam boo fanaan ak ñoom jigéen ah. doo nelaw ba bës ndax bëri wax gone gi ngañam ngañam guddi ngañam ngañam bëcc ah. guddi gi du ma sama bopp bi fi mu ne nii may waxee nii mhm. sama bopp baa ngi naan pëng pëng moo ne am naa loola ci dimbali est-ce que kii nu de per kii vie Diouf vie doomi per bu xar nag daa war di taral rek am naa loola ci dimbali de hmm. <laughs> am na koo xam ne ku mën a téye liir te mën na ko téye ba fajar dara du yëngu hmm. jox ko Youssou Ndour eh, eh, eh. Youssou mën na la ko téyel wax nga dëgg moom kii la nii may da ma nga nga nga di yokkatu rek maamam la kay. waaw ah, jox ko mu téye ko di. waaw waaw maam day baax maama loo ci doon fekke te fekke ma ci mu ànd ak maama loo ci fekke te fekke ma ci mu ànd ak maama loo fekke te fekke ma ci mu ànd ak dalal dalal jox ko yuusu mu yaral la ko dalal dalal jox ko yuusu te Njaay mm. caa doy mm-hmm. cox mm-hmm. bala nu ñëw ci Michael Jackson bi nu mm-hmm. ñaanal la ci réew mi rek dëgg la suñu borom def fi jàmm. xam nga boo nekkee ci gaal. Hmm. Hmm. bul ñaan suwee yow. Hmm. ñaanal gaal gi suwee. ndax dégg gis na ma. dëgg la te nag dañoo nekk ci réew moo xam ne nee naa leen réew mu Sëriñ Bamba ne. borom biraa su man baari sini biraa su man yu baari su mun taqi man baari su man. waa kër Cheikh na Cheikh Saad bu ne fi. walaay. waa kër Sidi Hadj Malick ne fi. sunu maam Bukunta Ndiassane. tubaarkàlla waa kër Limaamul Mahdi yu ne fi. réew moomu jàmm fa war di am. dëgg la. nañu yéenante jàmm. dëgg la. Mm-hmm. caa. homme de tenue yi bëgg naa ñu jox leen cër. vraiment. Mm-hmm. dafa war. vraiment. sa jaadu. nan leen leen respecté jox leen cër homme de tenue. Mm-hmm. man bu dee dawal nii guddi ba romb leen ci couvre-feu bi billahi barke Cheikh na Cheikh Saad bu dama leen di yër. wallaahi. ndax damay xam ni ñii danoo bàyyi ak njaboot. Mm. na ma bàyyi ak njaboot. danoo bàyyi soxna bàyyi doom. te ñoom nun ña nga ci sunuy kër tëdd. Mhm. suñuy soxnaa ngi tëdd ñi ngi tëdd si suñu watanu njaboot uuf leen mhm. waaye ñoom déedéet duñ tëdd ci kaw tali bi la ñuy taxaw ba fa dinu garde ndeysaan dinu garde mhm. caa yàlla tere tey boo tëddoon sa kër jékki-jékki ñu ne koñ baa ngay tàkk wala sàcc yaa ngay xeexoo wala jaas yaa ngay naaw doo génn sa téléphone ngay yëkkati yàlla nga waxal de woote fi la neex waxe <laughs> kon caa homme de tenue yi leen leen delloo njukkal te xam ne ndeysaan kàlla ñoom sax léeg-léeg dañuy am lu leen naqari trop ñoom dañuy am des fois lu leen naqari ndax des fois am fu leen askan yu yóbbu foo xam ne ñoom dinañ bir ne bi léegi barke yonent bi ñoom nekkunu foofu xam nañ ne ñu nag ñoom rek kay boo waxee ci ëmditi nii mm-hmm. te waxuma mm-hmm. dina am leneen lu ma yëg yaa ngi ñoom a dëkk alhamdulilah rabbil alamin ndeysaan mm-hmm. vie bàyyi nu per wee wee lu ko def écoute yàlla nan la ramasse boo dëkkee ci gox yàlla daf ma juddoo fa yoroo fa màggee fa ndeysaan da fexe gëm gox ba. wér na boo gëmee gox ba rek gox ba gëm la. Mhm. ndeysaan dëgg la. dama am ay moment yoo xamante ne ni surprise yoo xam ne sama àddina duma ko fàtte illaa yombi diin. Mhm. boo nee commissaire ku ci topp. Oh, kii commandant commandant. Mhm. ñëw naa émission ba tey. commandant taal otom yapp ma dugal ma ci biir indi ma fii buntu TFM. nga ni man commande Seydi Aboubacar si télé laay waxee. Bakary Dramane Armbo Kuma Thiam Sofia Tor Mbongo Mbongo Soxna Ndiaye mu dama laa bëgg a wax ne rek. ni hmm. li ngay wax bu ma ko dëggulul. la ñu cotiser du ma am jàmm. Ah. man gis naa ma ñaama ma waay ma waaw. fii daa naqaree waxee. non non neex naa waxee. neex naa waxee wax fii neex dama c'est que damaa gis juste rek bu paan. Hmm. ab policier bàyyi postam bam garde ñëw di ko puus. may ma wax la benn démb barki démb <laughs> gis naa benn image benn policier di jox benn xale masque nii di foo ak moom foofu rafet ndeysaan ba jox xale bu tuuti masque nii a wax la leen lu tuuti bëriwul mm-hmm. néew ma police liggéeyunu de police yëpp a ngi liggéey mm-hmm. police yëpp moo xam gendarmerie la mm-hmm. moo xam police la moo xam dig la moo xam waa beer la wax dëgg yàlla ñëpp ñëpp ku ci nekk yaa ngi bang saw laaj ci fa nga ne waaye waaye police Grand Yoff kenn du mhm. commissaire ba bu leen ne kii mooy commissaire Sarr doon di déedéet. Eh, bu golf bu golf eh. ma wax la ñaata. police parcelle police parcelle ay jàmbaar. golf wax la beneen. golf ah waaw waaw yow police parcelle police golf ah, ma jibu lay ah, police Louga nag. waaw ma may leen tuuti nag man. ak ma jibu lay police Louga ay jàmbaar am na ay jamono. Mhm. bu du toon police Pikine kon dof naa bu yàgg. Hmm, yow mii waaw. est-ce que sama dëgg rek sama dëgg rek laay wax. waaw kii xam na li may wax. kii xam na li may wax. Mhm. man mii xam naa li ngay wax non teenoo ba na dugg domaine boobu non de wuy euh, ma wuy ma vie vie may nu Michael Jackson vie Michael Jackson vie Michael Jackson vie vie Michael Michael. It is too late, and it's too late. damaa bëggoon bala ñoo tëj. nga dugal ngooyaan. président tribunal daa toog. Hmm. barke yonent bi duñ ko fecc. billaay duñ ko fecc. ko fecc. di léegi vieux. danoo toog nii. Ah, ah. président tribunal toog. non il faut may indi tenue bi yenn saa yi. non mënta ñàkk weekend bee di ñëw. foog ñu semaine bi waaw ndax parce que. oui Ndiaye di ñëw foog ñu déguisé wu. Ndiaye dañ koo war a altine al atte altine prochain. incha allah ndax yii mi def ci plateau. très bien <laughs> Ndiaye jëlal say avocat. yow tànnal jëlal say avocat. yow li nga def crime contre li. non Ndiaye. Euh, Ndiaye jëlal say avocat ca teel. foo nga taxaw. wala bu la neexee nga indi avocat. oui euh, mesdames et messieurs bonsoir. waaw ban avocat la ni. c'est Abdoul Mbaye euh, l'ancien premier ministre du Sénégal. Hmm. da ngay taxaw tribunal laa la taxaw jarul yëpp ngay def ndaari. je vais prendre euh, monsieur Souleymane Ndéné Ndiaye comme avocat. a je vais prendre. Euh, kan je vais prendre. a bàyyi boo tiitee di làkk tubaab. kan ngay jël yow yaa war a bàyyi la. Ah? koy jël avocat. je vais prendre Djibi comme avocat. Djibi Seye man. oui. njëxal léegi xejul fii léegi kon altineeg jàmm njool dinañ ko wutal robb avocat hmm, naa ko indi mu ñëw naa ko indi président tribunal toog rob yi moom maa koy indi ñun ñaay rap sa dernière pone kon mu xabaar bu rap ñu foto ko rek ndax tay lay gëj a rap correctement s'il vous a rap président waaw article bi nee na parce que xoolal ma ne nu liggéey de barka rafulaay ana tay manal may moom liggéey wala mu takkal a génn na ci bu jibisee disponible lul. lan ngay jaay lan ngay jaay. soo nga fayoo dëkk yi bu jibisee disponible lul. dégg waaw bu jibi disponible yaat ma caam laa bëgg mu woo sama mu nekk sama avocat. yaat ma caam tama kon dana daal tama amul problème mën naa nekk. ndax moom benn. ragaluñ loolu président tribunal a ngi nii. <laughs> maanaam ak yow yow lañ jiiñ mbir mi. waaw li nga def ci plateau bi. waaw te ñun ñii ñoo la ko jiiñ. Mm-hmm. wutal avocat bu baax. expliquer ko détails yi bala ngaa ñëw ci plateau bi. pour mu xam li may wax. président ñëw toog fii ma toog nii. Mm-hmm. nu taxawal. parce que lii nii buñ ci waxul dina ëpp dina ëpp ah, loxo. Ah, dina ëpp loxo moom daal. <laughs> téléspectateur yëpp maa leen di jox rendez-vous ne leen altine prochain. dafa dana sol robb ba. billaahi. njaay dina wut avocat nun noo ko jiiñ li mu def. Mhm. te ñun xam nañ liñ ko jiiñ. te bu altineeg jàmm. dina leen wax liñ ko jiiñ. te avocat ah. eh, rob bu be rob bu bees bi laay sol bu niroog bii. waaw moom boobu ngay sol. boobu laay sol bu bees bi. Mhm. bu ko defee nu àtte ko fii <laughs> en direct xool ba xam day tëdd. wala du tëdd <laughs> wala du tëdd. <laughs> parce que li muy def nag du yoon. parce que nag li muy def du yoon. Ah, fii dafa xatte kilim tàkkul. effectivement caa ana ngay tàggoo. waxtu ba daam dégg ma nee naa fii dafa xatte kilim tàkkul <laughs> bàyyi naa leen ak yàlla bu fekkee am nañu ñu lay marsal nanu mars gaaw balaa di balaa leen di <laughs> bu dee am nga ñu lay marsal parce que di taal ay pono ah ak di teg ay a ak yàq oto jàmbur bu yeboo suba suba ñu def ko yoro numéro Guy Marius <laughs> wax la ñu yokk dañuy yokk rek. jàpp nañ ko sànq. dañuy yokk sa pen jàpp nañ ko tey. Ah. Ah. Eh, eh. jàpp seetal keneen. Eh, ay waay. Karim xurum xaq nag yoroo numéro. Karim ñu ngi koy wër. bàyyi na dafa bàyyi. Karim ñu ngi koy wër kooku bàyyi na ci li mu nekkoon. bàyyi na ci li mu nekkoon. léegi ASP la waxal keneen. waxal keneen. Souleymane nag mi toj la woon. Souleymane man. Souleymane man. Ah. borom borom ki ki ñu teewoon jabar bàyyi na dem na internat. Zoulay Zoulay internat. mooy ki téye woon ji mu daw. dem na internat kooku it kenn ma dem université. koo seet koo seet ngemb. nangu na lépp. ñoom ñoo ngemb. dimanche bi dañ bàyyi ba nu dem ñu nangu lépp. Ah, ah. waaye nag waa Pikine laa Pikine ah Pikine kuñ gëm nga falu Pikine koo fay àndal yow booy naa la Pikine waa Pikine gépp lay àndal man daal li ma wax mooy altine ak jàmm Pikine daal kuñ gëm nga falu altine ak jàmm daal préparé wul dan lay jugé fii ci plateau bi danaa danaa woo Njañ Jóob it ma topp waaw Njañ Jóob Njañ Jóob meeru mbam bi loolu dana ma topp waaw <laughs> Tayru Saar dana ma topp nee naa daam ñu ma àndal de ah, waaw mm-hmm. doo jël Kéba Seck mu ñëw nee naa ma topp du ma bàyyi benn yoon ak Maysa Karlu di dana ma topp dama ne waxaab dana ma topp. waxaab faal dana ma topp. waa Gambi. yokk sa nee naa la waa Gambi dana ma topp. <laughs> yokk la Sira Kujo dana ma topp. <laughs> naa la Omar Ndiaye dana ma topp. yokk sa penn la Oncle Badara naa la eh. ah. pen man pen bu yokku la gis rek yokk sa pen la rek. ah. Hmm. moom daal Ndiaye. yéen ko da ma maa sosal. njaay sosal sosal ma ba pare àtte ma. Ndiaye. li may wax daal altine ak jàmm. téléspectateur yëpp danoon ko teewe

waaw jox commissaire ba jël sama jaga ci réew bi indi ko commissaire jox jaga jaga jaga bañ maa ko jàpp xanaa commissaire ba war maa yërëm sax war maa mën a xool ndax man ñaata at a ngi nii sama soxna gaañu te ndeysaan ñoom it bi de seen temps liggéey doxul de ñoom kii seen liggéey doxul de de ah doxul xanaa à domicile la ah da nga cee xam dara da nga xam dara taa yi ñoom seen job doxul njaay ah, ah. ah njaay ngay wax na la de ah caa ah, ah laay laay la laay ah waa léegi comme que noonu nañu ibi téléphone bi ñu xool ah yi day seen liggéey nañu ibi téléphone bi ñu xool ah bis yi ñu dina jëb fu ten koo tëj rek te tàggoo moo ëpp jàmm nañu téléphone yi moo ëpp jàmm de. bis ah, bu la ubbee ah, téléphone yi. ah, ah yuuxu dinañ jëpp fu ko <laughs> nañu bi téléphone yi rek. xam nga man bu ma daan jugee ci tele bi <laughs> comme lundi nii bu ñu fi daan jugee ay deux heures nangam di ñibbi <laughs> dañ leen daan romb ci télé bi nii. waaye dama leen a gëj romb. couvre-feu oblige. kon amuñu laisser wa. góor ba ñu yar nañu bëri. <laughs> ayca jërëjëf kontaan nañu waxtu wa dab nañu tubaarkàlla bu ko defee ndeysaan nii la rek nekkoon fi di leen bégal di saafanteeg yéen kaf fooree. nun noonu rek suñu métier man nee naa ñun temunu bu fekkonte ne dañuy teg tem rek. war hmm. caa waxtaan. Eh, bu boobaa Sénégal xam ni tem na nanu ndax xam naa ne luñ dugg danañ ca wax ba jeex. te luñ ciy wax it. buñ demee ba ca tëj ba. danañ ci indi solution. Hmm. waaye dama ni nun déet buñ tem. ndax télé yi bari na ñuy tem. ay comédien la ñu nun bégal askan weenu yëkkati kon nan leen di bégal rek mën ngaa tem am koo xam ne bii ne mën nga koo gaañ mën ngaa tem am koo xam ne bii ne xolam dana sedd ca yow am koo xam ne bii ne boo moytul dana la ca mere te ñun nitu ñëpp lañu ñun ñëpp nu bokk. heure bi de heure sax. waaw man damay faral di wax naan caa <laughs> damay faral di wax naan. nun li nu doon doomu aadama yee nu ko def. Mm. ndax bu fekkonte ne dañuy toog jàkkaarloog ñun ne caayi tele bi yem ci per bu xar zappe ko. Mm. Eh, kon li nu doon tey duñ ko doon. ñoom ñoo nuy bégee di kontaan ci ñun di nu ñaanal. fu ñu leen romb nuy bég ci ñun nu nu wàcce suñu bopp rek fu ñu leen romb jox leen seen wàccuwaay mm-hmm. ndax li nu doon noonu noonu ko def kon day jaadu ñu toog bégal leen. kaf ak ñoom foo ak ñoom réeg ñoom wàcce suñu bopp tolloo ak ñoom mhm. donte sax ñun dañuy ami problème mhm. waaye dañuy denc suñuy problème ngir génne leen ñoom ci seeni problème mhm. xanaa du waxoon yàlla na fi yàlla def jàmm ci réew mi maa delluwaat waxaat ko yàlla na fi suñu borom dolli jàmm caa ana lan ngay tàggoo waa réew mi gannaaw ba nga leen bégalee ba nu bég caamaas waa père dañuy santaat yàlla bu baax julli ci yonent bi sànq da wax wax jom solo bu nit lekkee olom na ko gërëmee cooy. Mhm. bu lëkk lekkee olom na ko gërëmee cooy. Mhm. gis nga mhm. per. du man du man joo gis bokk ma càkku gën. te réew mi toll na foo xamante ni nii. fii réew mi toll. yàlla na nu yàlla sàng maanaam suuf. amiin gis nga per. gars yi buñ la ko waxee buñ la ko waxul. gars yi ngi wéyee loo xamante ni la ko waxoon loxo dër gémmin. billaay gi bari na. Euh, euh, euh, si walaate gi bari na. billaay wallaay. yu bon yi bari na. billaay wallaay. dar nañu tàppe suñuy xol. billaay bis bu nekkaa. Ah. yéenante jàmm te yàlla rek tax. billaay wallaay. gis nga doomu aadama nag li nga am dong ngay joxe. per mhm. li nga am dong ngay jote. Mhm. te gis nga. Mhm. yar dafa am solo. bu yàlla defee ñu yar la. yor la. nga màgg xàmmee ràññee. li waykat bi noonu doonatoo gune lu ne ngay doon. kon boo góorgóorloo war ngaa mën a dimbali. man ma toog fii xeex Tapha mii. xeexuma Tapha sama bopp laay xeex. laaj ma ndax la non téema koo def ni ko yàlla def mu noppal ko noppal ma man. teewul may caam man. barke teewul may caam man. illaahi wallaahi te ba pare sunu borom yokk lay garaat. teewul may caam. <laughs> barki Seydi Aboubacar si lépp lu man am tam naru ko ma naru ma ko bokk samay nawle yàlla boobu loolu ñëw. amiin amiin waay baax. barki Seydi Aboubacar si. loolu noonu xam na te jàmm te yàlla rek. mani mani waaye nag. Euh, mani euh, mani non non bi nga ko mujjee def matul deux heures de temps. neel point foofu nun nii dañ cee xam dara. ko mujjee def matul deux heures de temps. nun dañ cee xam dara ndax da noo wan nu gis. xam nga liñ naan wax sa mbaaxu waaye di wañ sa mbaax dara. te mm-hmm. mm-hmm. gërëm nit. te la tekkiwul la mm-hmm. kooku bokk ci naafiq la te nun noo mag loolu dëgg la yàlla la suñu borom defal jàmm euh, loolu nag laay profité waat tëj mm-hmm. xam naa ne temps a dana xoj mm-hmm. ñu santat yàlla bu baax julli ci yonent bi di ñaanal suñu wasila euh, sëriñ Babacar Sy yàlla na yàlla dëggalal taxawaayam ci barki Seydina Muhammad yàlla na ko fi yàlla bàyyi sunu kanam bàyyi fi bépp xalif xalifa général bi fi nekk yàlla bàyyi leen fi sunu ndax ñooy sunu sag ñooy sunu sag. ñun ñun ci ñoom lañu dimbali ko. kon yàlla na yàlla yi sàmm. suba dañuy xëy sàmm leen ci barki Seydi Aboubacar si ah, di gërëm nag waa Grand Yoff gëma dëkk. Mhm. di zone 7B. Mhm. nga xamante ne nii wax dëgg yàlla ay jàmbaaru fàqate dafa nekk. Mhm. wax dëgg yàlla ña fa nekk danoo nangoo liggéey. am jom lool nag. waaw ma ci sant yàlla bu baax julli ci yonent bi ndax boo diggee ci quartier. yoroo fa màgg fa ràññeelatu fa da nga ci sant yàlla. ndax gënuma fa ndey gënuma fa bàyyi gënuma fa kenn juddu waaye danoo dama bëgg te yàlla rek tax kon mbëggeel googu ñu jël yu jëmale ko ci man mhm. yàlla ko sunu borom delloo ci barke Sidi Aboubacar Si képp ko fa am tiis mhm. ak naqar wala jaaxle mhm. ci mim réew yàlla na ko yàlla teggi def ko yiw ci barke Sidi Aboubacar Si amiin waay amiin waay euh, li may daaneele mooy képp ku yor solo bon bëgg ko jëmale ci barki Seydi Aboubacar si li ngay seet yàlla bëgg ko gis. amiin li ngay seet ci nit ki. muy lu ñaaw. muy lu bon di wax ju ñaaw. Mhm. Mhm. yàlla bëgg ko gis ci barki yonent bi. amiin euh, euh, euh, sunu wasi la ba. ma Abdou Aziz Dabaax. Mhm. dana wax wax am solo. xool xoolal ba ma koy wax kañ la woon. ba tey tey. nanu tàppe xol yi. kañ la woon. billaay wallaay. sala maman. billaay billaay sala maman. soog ñu teeylu. ma joxal la beneen misaal. Souleymane Faye dafa wax way bu am solo. Mhm. waa réew mi teelu leen. Mhm. Mhm. ndax boroom yat. du xeex ak borom fetal. yi ni dëgër bopp yi yaay sa diina laa. teelu leen noo. teelu leen noo ñun bëgguñu ngeen gaañoo. xam ba fan ban message rek laa la bëgg a jox. actuellement Amérique. mu ngi ci ñaata président. 54e je sais waaw ñu ngi ci ñaata président. 54 ña nga ca limba rek. ñun ñu ngi ci ñaata président. 4 waaw duñu teey. duñu téye di réglé di xam fi ñu bokk. Mhm. duñu téye nag. Mhm. wax nga lépp. wax ah, su dégg nga li ma wax. waaw waaw di ci profité di gërëm Serigne Medoune Seye borom tawféex. waaw borom Serigne Medoune Seye. laay waxee nag Serigne Medoune Seye borom tawféex. Mhm. du ko ñaanal waajuram Serigne Faye Medoune Seye borom tawféex. wasalaam waajuram yàlla sëñ Dafa. waaw per kontaan kontaan la nii lan ngay tàggoo askan wi toogoon di la teewlu gannaaw ba nga fi jàllalee kàddu yu rafet yi jëf yu rafet yi ba nit ñu kontaan ci kontaan la ñuy def rek ci mhm. yàlla may ñu fekke waat mhm. altine bi fekkete waat altine ñëpp fekk ñëpp wér mhm. ñu ngi gërëm waa quartier Déggo bi nga xam fa laa dëkk waa quartier Déggo Cambérène falaa <coughs> dëkk waaw mooy sama ruq ba ñu tuddee woon ko sans loi léegi quartier Déggo la dëkk ñu tudd parce que ñëpp ñëpp wallaay ñun sonal woon waa Cambérène ëpp na de hmm. waaw Cambérène yi hmm. dañ leen sonaloon torop oh. yëpp maa ko jiite woon maa ngi jégalu laay mataar <laughs> maa ngi jégalu mbaax man maa daan jiite contestant bi di xaañ paa yi xeer rek boobu ma boobu bandi laa woon léegi laay ma taar maa ngi maa ngi gërëm waa Cambérène yëpp kaat ci déggoo per gërëm ñi nga xamante ne mooy Pape Sadio sama booy bi may attaayal pal fajar waaw di gërëm sama benn yaay mu nekk Amérique ñu koy wax Layla di gërëm fi Fleur damay ñaan laaj est-ce que ki ma ñawal nii may ma yére mën naa koo tudd. dafa baax a numéro turam a ngi fii sama portable. ak a a dugal sax nga ngi ak numéro. mi ngi fi wallaay. tuddal tur wi joxe numéro. waaw. gaa yu baax yi di gërëm nag euh, soxna yi nga xamante ne ñoom lañ bàyyi ci kër yi mhm. di leen ñaanal yàlla mhm. ki ma ñëwal nii mi ngi tudd euh, <coughs> Omar Harouna création nekk Kër Massar mhm. numéro bi 655 71 97 joxewaat ko 655 71 97 mi ngi nekk euh, kii euh, Kër Massar la nekk. Omar Harouna création. moom moo ma jox yëre bi ma sol ko te mu jaar ci sama morom artiste muy Assane Ndiaye te moom Rassay. ndeysaan maa ngi koy waaw maa ngi koy gërëm bu baax a baax. di gërëm sama benn xarit bu bees bu ma am bees mu tudd Nafi Fleur. Nafi Fleur Nafi Fleur la tudd. di gërëm euh, tata Layla. di leen gërëm yéen tamit comme ni ma ko waxee chaque jour rek. Mhm. parce que caamaa dafa xaw ma lan xaw ma lan ko na nga ko alom xaw ma lan dégg ma olof baax. waaw bu <coughs> lëkkalee xolam na ko comme ni ma ko waxoon rek yaatal bi yaatal bi dafa yemul fii ci télé bi kese. bu ñu génnee dafay mel ni ñun ñoo bokk benn kër bu ñuy fanaan. benn néeg bu ñuy yeewoo te loolu dafay tax émision bi gën a gën a gën gën a jëm ci kanam. parce que ay nit ñoo jox confiance pour ñu nekk fii di bégal ay doomu aadama. donc loolu dafa war a feeñ ci plateau bi. war a feeñ ci côté yëpp. donc ñu ngi kontaan chaque jour ci sénégalais yi nga xamante ne comme père ni mu ko waxee. ñoom ñu nekk li nekk. man na dafa am benn slogan chaque jour bu may boo xamante ni xam naa ni ñu bëree bëri nañ ma ci jéppi mooy suñu moroom artistes yi nga xamante ni dañuy jël nit bëgg la topp la foo dem mu toppale di la seetaan bu la laajee numéro nga jox ko foo numéro wala mu lay woo doo ko wuyu amul sens amul sens loolu nañ ko bàyyi parce que baaxul parce que ay nit kese lañu ñi xamante ni ñoom ñoo ñuy seetaan di seetaan ci internet ñu am ay di ci jële xaalis ñun suñu yaay gënuñu leen donc ñooñu dañ leen war a jox cër bu la laajee numéro nga jox ko numéro su la woowee nga wuy ko du la wàññi sant sert à rien donc kon ñi ngi gërëm ñi nga xamante ne ñooy seetaan artistes yi mm-hmm. te di di di wax nag mm-hmm. ah, ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci biir aar bi ak kullu aar bu mën a doon rab ak mm-hmm. dessinateur nangam nangam ñu gën a jox gëdd artistes yi fi may jeexale mooy na di ñi yërëm xale yi góor ñi yërëm jigéen ñi loolu sama wax la chaque jour xale yi nañ leen yërëm góor ñi nekk ci biir kër yi di mbugal jigéen ñu bàyyi ko parce que moom moom loolu moom sama wax la anytime parce que man si xeex boob laa nekk kon maa ngi kontaan ci Sénégal yëpp di di ñaanal ñëpp jàmm ñu fanaan ci jàmm jërëjëf waaw kontaan na li nga ko waxee rek ci artistes yi laay dellu xam nga da cee am ñoo xam ne da leen di woo sax nu naan la wool sama ménagère wala waxal ak sama ménagère bala ngaa wax ak man gis nga nit ki. te muy mu moo foofu laay waxee. xam nga tey yow caamaas bu ma la woowee man en tant que per bu xar ma woole yow caamaas nga naan ma waxal ak sama ménagère ah yow respecté woo aar bi ngay dund. ñun ñëpp dañuy jàppalante. kenn ku ci ne da ngay soxla sa morom. Ah, ma dëggal la foofu gis na ma. nekk naa woon ci tolof tolof. <laughs> woo la ne la perfo nekk ma ne la yaa ngi sa nga ne ma may la joxuma sax ren dama la suba. demal nga liggéeyal ma lee. waaw nga xëy suba. waaw taal sa oto dem liggéey ko dem tourné ko. barka El Hadj Malick taalaat sama oto dem ñibbi. ndax nag danoo war di jàppalante. bii may nu nu tàggoo ay ca doyen ana lan ngay tàggoo réew mi. waaw li may tàggoo d'abord nuyu mhm. waa Ngor gi nga xam ni fa la dëkk. Mhm. di nuyu waa Louga sama dëkk ba nga xam ni aw ma lu ko ëpp. Mhm. di leen jaajëfal bu baax waaye di kontaan à chaque fois plateau bi. ci Tafa ci caamaas mhm. ci njaay ci per ñu wax ne rek euh, da wax xam ne victoire xol yu yàlla boole moo koy moo ko am man mhm. mhm. donc caa nga dugg fu am solo yonent bi moo njëkk ni seen ngëm du mat mukk yéen jullit yi tànkal li nga yéene sa bopp yéene ko sa morom nga xoolati ñu ni la ci alxuraan wa ma yaxmal misqaala zarratin xayran yara wa man yaxmal misqaala zarratin sarran yara lépp lu jëf ci safaan bi lu toll ni bën bunu pos suñu borom dana ko fay bu dee lu baax it noonu kon ñun li ñu war rek mooy euh, ànd te yàlla rek tax parce que ki nga bokkal fi ngay roote mais ñoo kooku boo ko deful mbokk defoo ko nawle ñu ko yow koo def nawle safewut li am solo mooy euh, nit dina toog des fois ci ci ci ci mbooloo ñëpp wër ko mu naan nañ tàppe xol yi nañ bëggante nañ ànd te boo xoolee ci xol ba la muy wax macha allah kon donc nay rafet parce que mhm. àdduna yàggul te loo fi gis day jeex kon na rafet mhm. di jaajëfal papis konaate mhm. euh, di la jox sa wàccuwaay bu baax booy pulo maa ngi koy bëggee nga xam ni <laughs> pulo safoor booy pulo <laughs> père kama di ko jaajëfal bu baax a baax di gërëm <laughs> di gërëmaat bu baax a baax suñu président directeur général euh, muy borom kër gi Youssou euh, suñu kilifa googu di gërëm buuba di gërëm njaga ak biraan di leen waxan suñu kilifa yooyu tey nu ñu mel ci télévision ba ñëpp xam ñu yéen la kon euh, njukkal loolu dañ leen koy delloo saa su nekk jërë ngeen jëf. Aïcha Ndiaye ana lan ngay tàggoo réew mi gannaaw tubaarkàlla bëgg a bëggalee nit ñi bégal nu nun ñii. waaw bi nga <laughs> déggoo ma de nee naa ko gannaaw bi nga bëggalee nit ñi bégal nu nun ñii ana lan ngay tàggoo. waaw di wax rek ni euh, am naa mbégte contentement bu baax a baax ci bopp ma bokk yéen plateau bi <laughs> euh, di ziaran encore waa Pikine gi nga xamante ne nii di leen jaajëfal di leen sargal te di leen màggal ndax fa nga juddoo yaroo fa màggee fa da nga leen di sargal mm-hmm. di leen jox seen cër bi nga xamante ni moom lañ moom mm-hmm. waaye tamit euh, di dem Amerika di nuyu sama sang bu baax ba Amérique nga xamante ne nii mooy Mariama fay di la ñaanal gudd fan ak wér. Euh, sama sang boobu di sama doom nijaay di ñaanal yaayam sunu anti F Dieng sama yumpaañ bu baax jooju nekk fële ca pipeline Gambie di ko ñaanal gudd fan ak wér. ak anti Kumba Dieng nekk foofu moom itamit ca Amérique. Ado fàttewuñ la benn yoon waaye tamit di ziar ki nga xamante ne nii mooy Elimane Ndiaye moom mi nga xamante ne bu ma nee cëpp Gambie. ca terminal ba la may jëlee yóbbu ma fa ma dal lépp li nga xamante ni moom laay xew la moo koy jënd ci xaalisam lépp li nga xam ne moom laa yor ci ma poos moo koy génn joxe ko ci xaalisam kon Elimane Ndiaye mënu ma laa fay di nuyu bu baax Samba Ndiaye Mor VIP waaye fii ma génn nag comme d'habitude rek il faut que ma jóg taxaw ñu xool tuuti fii ma génn it comme d'habitude rek Cheikh VIP moo fi jaar ndax Cheikh VIP moom ne naa la ba ma lëkkaloog moom ba léegi tuarkàllu lu rafet la laay am waaw waaw télé yëpp moom ma koy jox Cheikh VIP nekk fële ca Euh, avenue Kayraba avenue ca Gambie di la ñaanal gudd fan ak wér waaye per mhm. di ñaanal képp koo xamante ne ni mu ngi toog doon ñu seetaan comme ni ñu ko waxee rek ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi yàlla nag yàlla gën a tàppe suñuy xol mhm. kër gi nga xamante ne fi lañ nekk di fi xéewloo euh, te it wax dëgg yàlla ñun ñëpp ñoo bokk ay bulletins yi nga xamante ne moom la jot mhm. kon ñun nee nañ li ñuy nekk ñun ci suñu biir sax duñ ko nekk ak suñu njaboot euh, dafa mën naa ne yenn saa yi damay toog soxla doyen lay woo du ci sax hésité day jël lu mu am yónnee ma ko damay soxla woo per lu mu soxla lu mu am da koy jël yónnee ma ko Thiamas teraanga gi mu def nee naa la moom euh, yàlla na ko yàlla fay xolam loolu mu ñeme naa ko waaj yow kenn gënu laa lewet kenn gënu laa oyof kon gën naa ne suñu ànd bi daal mhm. suñu borom dina ci gën a def jàmm di nuyu nga xamante ni ñoom lañ fekk si ñuy tourné série yu am solo yooyu ku ci mel ni Aba mhm. ñoom Baye mhm. kenn mënul juum daal groupe casting bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu équipe bi yëpp yëpp ñu ngi leen di nuyu Balla ñu ngi lay ziar bu baax ba ci Kulo Cheikh Lom ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ñaanal Thier chauffeur waaw Thier waaw waaw Thier chauffeur ndeysaan <coughs> ñaan suñu réew mi yàlla def jàmm F tamit maa ngi lay nuyu bu baax a baax borom Gambia waaye di fàttali ki ni eh, ajjuma incha allah sama xarit sama soppe sama doomu ndey dañ ko tuddee benn Miss Gambia moo nekk seen mag moom lañ ko magale nekk fële ca Kayraba hôtel ca Gambie di ñaan bu ko ku ca mën a yegg rek mu yegg si ceeg jàmm bu ko defee ñu mën koo feetu sama yaay ja Sadio Mballo Baro maa lay nuyu bu baax a baax a baax a baax a baax émission baa ngi noonu Vieux Diouf maa lay nuyu bu baax a baax Vieux ndax it wax dëgg yàlla ku neex a àndal nga yal na yàlla defal jàmm yal na sa jàmm baax a baax di la ñaanal jàmm ak salaam ak xéewal ak tawfeex foog naa fàttewu ma kenn defal kenn nga réew mi niw nga bitim réew euh, jàmme daa gën a marqué jox daal yu taaru yi boole ci service bu rafet bi macha allah. li ci des euh, euh, euh, nga xam ne Diouf Pro moo ñu ko moo ñu ko jox ñu ngi koy ziaraat mooy bu baax a baax a baax. Mm. ñu jégalu baax émission bi nag di leen wax ni man yi yeneen di kii gars yi maa leen di tàggu prochainement incha allah bàyyi naa dégg nga dañ lay leen di fii. non man bàyyi naa man bàyyi naa dañ lay àtte leen di ñàkk sutura ay bon ngeen yéen ngeen bone. Aïcha Aïcha Aïcha tuwaarkàlla ñu nuyu ko bu baax a baax sargal ko tey daal Serigne Abdou Kéemaan ñu ngi lay ziar da ñaanal ci barke yonent yàlla Muhammad Kéba Seck sunu xarit bi day toog saa su ne di nu teewlu moom it ñu koy ñaanal ci barke yonent yàlla Muhammad faramaareen bi tubaarkàlla nijaay Waali Seck tubaarkàlla faramaareen bu mag bi di nuyu nga xam ne mooy Maysa Maysa sama xarit tubaarkàlla doomi ndey Kéba Seck donc ne ku ma jox jesner waaw waaw ki la jox jesner doo ma dugaloon loolu ki la jox jesner ki ma jox jesner dama caama sañseel mi la jox jesner gis nga ki la yëkkati ki la fekk nga tilim mu yëkkati la ba nga set <laughs> teg la fu set ba ñëpp gis ko. bien baax Kéba Seck yal na yàlla guddal saw fan. amiin amiin à vous la parole. amiin ko bu baax. Kati Sarr Camara di ko souhaiter joyeux anniversaire à Kati dundal ba mu yàgg say may di baawaan. ayca ñu ziar ko El Hadj Doudou Gaye kooku mi ngi diwaanu Ndar kookoy chéri Fatima ñu koy ñaanal moom ci barke yonent yàlla Mouhamed du nuyu kullu koo xam ne bii toogoon nga di ñu teewlu ci seen émission seetu bi plus. Duwaar Kalla ñu jox leen dox daje incha allah lundi prochain. ci àtte